nekkoon lu jafe lool ngir askan wi dal di ciy teg seen bët ba tax ñëpp doon ko laajte ñàkk soble gi nag waraloon ba njëg wi yokk ba maara day taal yi donte importé nañ juróom-ñaari junniy tonnes samedi foofee ca port mu mel ni rek commerçant yi nga xam ne ñoo nekk foofee ca Castor jotuñu lu doy benn yoon. Euh, am na lu si jot a ñëw de mais xëj na quota bi ñuy waxul ak quota bi ñëw fii moom wuute na non comme ni ñuy waxoon ay sept tonnes xaw parce que ki ma mujj laaj def ma ne sept tonnes xam ma huit ton dina ñëw Castor mais booy xool ñaari conteneur ñoo fi ñëw. donte soble ñoo ngi koy gis ci marché bi. waaye mu mel ni rek njëg wi wàññeeku gi demeewul noonu. non prix wàññeeku bi taxul mu demee noonu de parce que booy xool vingt quatre mille presque fi mu nekk nii ak vingt deux mille presque soreewul daal wàññeeku na mais wàññeeku bi nag taxul mu demee noonu bu ñu sañ daal mu gën a wàcc nii mu nekk nii parce que. lii moom franchement parler affaire bi moom doxul. ci loolee ñaari camion soble nañu yebbi foofee ca marché Castor waaye mu mel ni rek jaaykat yi gisuñu seen bopp benn yoon ndax kat client boo wax prix mu daal di dem. seeraay bee tax fi mu nekk nii moom dangay xëy comme li ma wax keroog rek da xëy fii ba ngoon jot benn saako ngay jaay wala ñaari saako par rapport ak ni mu doon demee ni mu doon génne bu njëkk sax ñu bariwul moo moom moo xawoon tane sax parce que loo amoon di ko jaay mais fañ yi ñu toll nii moom wàññi bi ñu ci wax nii. moo tax dañu yaakaar affaire yi wàññeeku te fekk wàññeekuwul moo tax client yi ko wax prix mu daw. ngir njëgu soble bi dal di wàññeeku fukki junniy tonnes ak ñeent war nañoo ñëw fii ci Sénégal le 25 août bi ñu jëm ngir wax rek ni mu nekk jëndkat wala jaaykat ñoo ngi xaar yeneen juróom ñaari junniy tonnes yu ñu war a importer indi ko fii ci réew mi si fan yi di ñëw.